xam nga loolu du dëgg damay tàmbalee pour remercier président Macky Sall mi nga xam ne bi mu ñëwee dafa teg état de droit soxna maam Xari Mbàkke nekk suñu njiit man ma nekk membre RACIAT ci biir kuréel googu ngay tudd tey RACIAT 89 membres ñoo ci am 89 membres dama bëgg ñëpp déglu ko ba mu leer 59 yëpp ñu ngi ñëw di liggéey ak soxna si liggéey bu normal. li ngay wax nii juróom-ñetti nit ci ci biir membre yi ñoom ñoo koy wax te ñoo ñooñu seen intérêt personnel moo tax ñu di ko wax parce que ñun xam nañ Sénégal ñoom gëm naa ne ñoom seen intérêt personnel moo tax ñu jóg di attaquer soxna si ak directeur bi mais ñun ñi nga xam ne ñoo ngi topp si ginnaaw soxna si di liggéey xam avant rasiat di ñëw ak avant soxna si di ko jiite ci tolof-tolof yi ñu nekkoon pour liggéey ci gerte gi ak bi mu ñëwee jàmm ji ñu am ak suñu liggéey ni mu tegoo ci yoon ñun duñu wax loolu ñooñu nag ñu ngi leen di artu di leen wax na leen nañu arrêté yooyu ñuy def ndax du jàll usmaan Diakhaté ak sëriñ Mbacke Lo ak ñooñu ñoo xam ne si ne dañ leen a monté pour ñu ñëw dal ci kaw kuréel gi ñun duñ ko nangu ndaxte Pape Dieng ak soxna maam yi seen mbir ci yoon rek lañ ko teg kon nag maa ngi leen di wax ne leen loolu noonu du dëgg. wax nañ tamit li mu diggee woon lépp la respecté. amul lenn lu mu ci desal. dafa fekk ne nag kuréel gi nekkul kuréelu tappale soxna si ko jiitee kilifa la ci dëkk bi la dëkk bokk ci njabootu Serigne Touba gi yàlla dogal projet bi ñëw ci loxoom mu ci liggéey teg ko ci yoon dafa am ñoo xam ne nag ay tappale moo leen tax a jóg mais amul lenn lu ci tegewul ci loon mu mënuñoo duut baaroom ne lii tegewut ci yoon moom kay li xew mooy formé nañ seen kuréelu juróom-ñetti nit yàq jàpp nañ ne moo gën a yomb defar moo tax ñu topp rajo yi fu nekk ñu nekk fa di wax waaye ñun duñ leen déglu soxna si nag du ci yëkkati làmmiñam duñ ko may sax mu wax ci parce que ñun ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam te xam li muy liggéey xam lim ñu jariñ xam bi mu ñëwagul jafe-jafe yi ñu nekkoon ak bi mu ñëwee yombal gi mu yombal suñu liggéey ñun ñi ñooy taxaw wax ak askan wi wan leen ñoo ñu di wax seen intérêt personnel moo tax ñuy wax waaye li ñuy wax dara du ci dëgg ñi ngi remercier bu baax président Macky Sall ci projet bi nga xam ne si ne tànn na Touba gi dugal ko si teg ko ci loxoy maam xari Mbàkke jaaree ko ci Sonacos directeur bi nekk directeur boo xam ne si ne liggéey bu mucc ayib lay def moom ak soxna si ñun membre yi si nekk ñun ñëpp ci sama kàddu maa ngi leen di ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax na nag ñooñu di wax dinañ bu ñu ñëwee si terrain bi ñun lañ fiy fekk duñ fi fekk sax kilifa yi non dafal ndànk xam nga li indi coow li yëpp mooy soxna si moom liggéeykat la da leen a defar mise en zéro ne leen li ngeen yore fay leen ko xam nga nit boo dee boo jubee di liggéey jël alal jël alal di ci liggéey ñu ne la kaay waxtu wi nga war a fay jot na loolu jërul coow bu fekkee da jub nañ fay problème bi yëpp mooy ñàkk a fay ak di sàcc am na ci ñoo xam ne dañoo sàcc rakkal jaay ko ñu jàpp ànd ceeg ay kilifa mën naa ci cité ñoo xam ne si dañoo sàcc rakkal dem jaay ko ñu gis leen jàpp leen jàpp ci loxo moo tax ñu wër di coow mais nañu teey làmmiñ mënut a lekk morom ji te ñorul li ñu yore ñoom nañ ko fay ba noppi doo ko commencé wër di coow mise en zéro bi leen soxna si wax te ku jub moo naan am liggéeyal bu fay jotee mu ne la kaay fay ma soo fayut nag mu ne la yee eh kaay fay force suñu fay fu ñu mën a jaar fay ku nekk seen ginnaaw tamit dañuy fay ndax alal li alal réew mi la te président Macky Sall réew mi état de droit la da koo bëgg a teg si yoon caaxaan yooyu ñu nekkee woon jeex na avec soxna maam xari ak rasiyaat bi jub rek. xolal xam nga bala nga dindi nit si dara da ngay xam sax yow nit ki ñoom nan lañ mën a dindee soxna si loolu mbir soxna si moo créé association bi tuddee ko Rassiat moom ko dugal leen ci ñoom seen jëmmi bopp ñoom ñëpp ñu dem ba si biir li ñuy wax naan boo yoree sa kuy ba mu màgg kay bu yoree ay béjjén yow lañ njëkk a mbëkk moo ci am mais ñoom ñi ñëpp xamuñu woon benn organisation kenn ku ne ak ndànd fay-fay la woon kenn ku ne da daan nekk si sa ruq di liggéey liggéey liggéey mais soxna si moo ñëw dajale leen def leen groupe ne leen kaay leen ñu organiser wu a jariñ askan wi organiser leen bañ toll fii ñu toll ñuy cëpp cëppi di jaay reewane naan ñoom seen jëmmi bopp dañ leen di yóbbu ci yoon ñu fay ndax alal ji alalu réew mi la alalu askan wi la du alal ju ñuy pasar pasaree ku bëgg loo sàcc wala loo lekk nga dem wuti sa yëfi sa yëfi bopp nga sàcc ko wala nga lekk ko mais dañuy fay force bu fekkee fay googu leen soxna si wax na leen moom ngeen di fay moo tax ñuy jóg di ko attaqué mise en joro bi day day jàll ba léegi dañuy fay alal ji